wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli insha allah ñu ngi tàmbali ci bopp Ibrahima saar yi ngi wàcc Makkatal Mukarrama ndara aay yu néew ña wàcc Madinatal Munawwara bokk ji alam tara illazina baddaloo ñooñu ñoom métti na lañ saar wi aaya yi juróom fukki aaya la ak lu topp la ci topp nag am nañ ci ñu ne toppal na benn aaya ñu ne ñaari aaya ñu ne ñeenti aaya ñu ne juróomi aaya yéen teel Ibrahima la tuddee saar bi surtout Ibrahima waaye nag bu ñu ni ñu koy waxee ci aadaay mag ñi fii Sénégal di nga koy tuddee buraam lañ ko wooyee fii ci Sénégal buraam lañ ko wooyee njenge lisrail naxli xijiri buraama raak mbërgaan xóot yunus jigéen gilaay laan xaj ko baa ngi mooy xaju kaw bi dix koy tuddee buraam lañ ko mooy yuusuf raad mooy raxbu mooy raxbu mbëggaan muy yuusuf ni ko yee fii mooy Ali Imran mooy Ali Imran kon ñu commencé insha allah mu ne laam raa yàlla moo xam lu mu namm ci arafam yi li nak nga ko amone mu ne la kitaabun téere la bo xamne ansalna wacce naa nañ ko ilayka mu jëm ci yow sallallahu alayhi wa sallam ngir lañ wacce ko nak mu du nende lu am solo tax ñu wacce ko moy li tuxrija ngir nga genné naa sa nit ñi mën mu ci yéefar yi mina zulumati yi leen ci leen mu kéefar kon nit boo ko bàyyi liggéey da nga koy jàppal lii bàyyi leen lëndëm gi fu ñu jëm mu ne la ilan nóori ci leeru ngëm nga moo tax ba tey nit boo ko bàyyi lii te wax loo ko jàppal lii da ko aayee du ko bàyyi mukk mukk fokk nga ne ko bàyyi lii jàppal ci lii bis ni rabbihim ci seen ndigalu borom mu ne ila aziz yi ci yoon aj not ci nguuram alhamidi kaddu kuñ sant bu dee nga ne allahi nga jar ko mu nekk badal ci hamidi ba wala an fu bayaan dagan na wala nga ne allahu rafaa ko bu neexee lesi mooy ki nga xam ne loo ñeel ne ko boo ko rafaayee nag mu nekk mubtada loo ñeel nag maa lépp loo xam ne bi sama waati mu ngi asamaan juróom-ñaar wa fil ardi ak li juróom-ñaar yëpp wa waylun alkande piir mooy waylun alkande piir lil kaafiriin ñeel ne yéefar yi mu ne asaabin dimbalu moo xam ne shadiidin mu taratar la ñooñu mooy ñan mu ne allazina ñi nga xam ne yastahibbuna day tànn ñoom xayaatu dunya dundu bii lañ tànn tànn nañ ko bëgg ko rek teg ko seen xol bi alal axirati ci yowmal qiyaamati wa yasuddoon nañuy wañi jaami yàlla yi an sabilillahi wala si yoonu yàlla wi te mooy diinaam gi ba yabxuunahaa ñu sàkku yoonu yàlla woole xewajan ay dëng-dëng walaayika ñooñu fii dalaalin ñu ngi ci ak réer goo xam ne bay din usul dëgg dañoo sànku borom bi ñu nekk wa ma arsalna mosu yónni ñun sa borom min rasulin ci benn yonent benn benn illaa bi lisaani xawmi yi lu ma ca làmb ñu aw nitam ñu ngi ko yónni muy làkk ñu xam muy wax ñuy dégg lii bay na ngir na biral loom ñeen leen man nag aay bi daa sukkandiku man ne xutba ci wolof dagan lañ ma ko ay yoon ay bi ci laa sukkandiku parce que yaxu alquran le te yonent bi mo ne bu do xam-xam yi ñëwut yonent yi yàlla mo ne mosuma yónni kenn lu ma ci làng ba mu nàmp ak ñi mu ñi ma la làng yooyu nàmp illaa bi lisaani qawmihi yamu ca li buy na lahu ngir mëna wax luñ dégg ngir mu mëna wax luñ dégg xam ko waaye nek ci minbar bi di wax arab xamuñ ci dara waaruñu de waajoo ñu war sax delooñ ci yàlla mukk delooñ ci yàlla mukk yéen tamit defu ko woon am nañu wax loolu d'accord ñoom nekk doon arab lañu te bu ñëpp duut arab sax arab dafa ëpp te bu ñuy wate ñu gën a bari ñoom dañuy jox ka jox ñoo gañ moo tax bu fekkee mi dina amoon nañ ñoo xam ne ñu arab mais arab yaa fa ëppoon yaa fa ëppoon te ña fa nekk bu ñu yàggee dégg ñu dégg arab benn benn yëpp yaa ngi ñu diggal yaa ngi ñu diggal Ismaïla baayam du arab Ibrahima du arab yaayam du arab mais la mu yore ci jurhum moo tax muy arab sew sew bu demee war la Ismaïla nampul arab ngir gëm yoroo mu ci kanam insha muy jurhum ñoom ñoom arab piir lañu ñoo ñoo dëkk yaayam fekk baayam dem na moo tax muy arab mais moo Isaaxa bokk benn baay Isaaxa du arab Isaaxa ñu bokk benn baay benn Isaaxa du <laughs> moo tax mu ne wa ma arsalna mosuñu yónni ñu rasul ci benn yónnent illaa bi lisaani xawmi yi la mooy làmm ñu nitam ñe li ba yéene ngir ne mu leeral lahum ñee leen ñu dégg la muy wax fii dul dina mu sànq bi mu ne allahu yàlla muy saa ku ko soob wéy dina gindi muy saa ku ko soob boobu moom borom bi al-aziizu aji not ci nguuram alaakim mu aji xarañ ji borom bi wala qad ñun sa borom ñoo yónni Moussa alayhi salaatu wasalaam bi ayatina suñ kawtee mu juróom-ñeent ne ko an eh, eh, eh axrij da nga génnee xama ko sa mu kéefar gi ila noonu na ca fàttali ga la ayatin kawteef goo ne li sabarin ñebi fu ko ne mu ñàkkoon la ci topp yàlla shakurin santaakoon xéewalu borom bi la subhanahu wa taala wa na nga fàttali ko te fàttali il xala waxee na Moussa li xam ne ñeen itam ñu parce que fàttali ni'matillahi xéewal yàlla gi ni'matillahi aleykum ci yéen il anjaakum mu leen mosalee min ali firawna ca nit firawna ya yasumunakum mu leen di togg moom firawna moomu leen su al azabi ñaawu mbugal wa yusabbihuuna mu ngi koy tekki muy rendi am naa akum seen doom yu góor ya ku julli di góor mu rendi la bu yastahyoona bu sàkkoo desal muy muy dundal di sàkku seen jigéen ne ndax bu xaaba ya ñoo ne fii ci misra dana am xale bu fa boo xam ne moo Buraaba yi ñoo ko wax ne ko nag mu ngi bokk ci bënu Israël lay bokk ci ñoom lay bokk de bokk ci sa mbokk yi de mu ngi bokk ci bënu Israël la waaye bënu googu la moom moo lay folli ne na wa fi saalikum nekk na ca loola te mooy musal nii mbugal ñii nekk na ca balaa woon natt goo xam ne mi boo ci seen borom ansi gën bu màgg màgg na ba nga xamee ne xam le na rabbakum seen borom ne la in sakartum sant ngeen la si danekum dana ma doole leen wala in kafartum bu ngeen ko reewalee nag weddi sama xéwal wala ngeen caaxaanee ko fooyee ko def ko ci lu ma neexul inaa tamit sama bëgg la si doon dafa nekk lu tar waxoon naa ko nee naa leen duñ ko firee weddi ndax gëm nañ yàlla bu noppi kon mooy yàlla sant jox ñu sant keneen wala ñu nootee ko def ci lu neexul yàlla borom bi ne kon sama mbugal dafa nekk loo xam ne lu tar la waxaale wax na mu Moussa yonent yàlla Moussa ñu raw ñu itam ne ñu takkaburoo ndéem weddi ngeen na laa naka borom bi la xaniyun aji doylu la walit mbindeefam yi xamiid ku sant la te ko maanaam mahmud kooku mooy fayal bi maanaam mahmud alam yaatikum xanaa daf leen ñëwalul itifam bi itifaamu taqrir la laajte booy saxal na boobu la seen xibaaru gaa nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon xawmi noohin nit yonent yàlla noox wa aadin nit yonent yàlla huudiya wa samuuda nit yonent yàlla saalix wala si na ak gaa ñi nga xam ne min baadihim ñu tukkee seen gannaaw bari nañ lool bot la yàlla moom du leen xam mukk ci la daa ko dul yàlla jaaduhum ñëwal na mu leen waxoon nañ ko léegi rusulum seen ndaw ya lu bay naa ci la yu leer nañ ñi jëm a takk siir taay boobu tekkul ne taaw la déedéet boroom xam-xam ba na xadis takkat xoraatu naa si taa ca mënatu takkat xoraatu naa si taa mooy ji mooy fayal ba góor moom ko jigéen moom ko jama takk siir la daf ne xadis takkat tawat na jàmbat na xoraas na suñu koy raflee si taa sedd bu metti bi sedd bu metti bi kon xoraatu booba jigéen moo góor moomu ko jama takk siir la moo tax kon taa bi dugul taawu taanis de moo tax mu ne faru faradoo delloo nañu ay di yowum seen loxo ya fi afaayim seen gémmiñ ya di matt baaraam yi ngir mer waxala ñu ngi naan inaa nekk ñun daal kafar naa weddi nañu maa lépp loo xam ne urtutum bi yu nef ne leen ko ci seen déclaré way naa nak ñun sax la fi takk ñu gis gis sikk sàkka mi maata doxoon na naa ci li ngeen woowee ñu ilay jëme ci loola sikk sàkk boo xam ne mu réy biin da ngeen tàbbal boon sikk sàkk rek xal wax na mu loolu xal wax na mu rusulum seen ndaw ya ne asakku ndax sikk sàkka fi laay defaam ci yàlla kennu yàlla ak dalil leer nañ yàlla mi ngi wax faatiri samaawaat yi ba bind asamaan juróom-ñaar wala ardi ak suufu juróom-ñaar yeddoo ya ko ba leen doomu borom bi ngeen ngeen ngeen topp ko di yàqfara lëkku ngir mu jéggal leen min sunnoo bëkkum seen bakkaar yi wax naa ne min bi dañ ko yokk rek di yàqfara lëkkum sunnoo bëkkum jéggal leen bakkaar yi yëpp yent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam al islaam yi jub ma xabloo wa yuaxirukum mu yéexee leen ma ilaa ajali mu cab dig boo xam ne musaman buñ tudd la xaala wax nañu ñoom ni nga xam ne mooy xeet yaa in antum nekku leen yéen ñii illaa basarun dara mbindeef rek naa comme suñu te lu doon da ngeen bëgg an tasu doon ngeen wàññi xamaa kaan la nekkoon na yaxdu di ko jaamu abadan suñu maam bi an tasudduna ah bi daf ko yàq an tasudduna waaw kay bi daf ko yàq moo tax mu jaaxal ma kay mu def da an ñu ngeen wàññi ñu waaw ngeen wàññi ñu bi daf ko bi dafa bàyyi alif bi dafa bàyyi alif kon faatu na andi leen ñu sultaan mu bii niñ ci layu leer nañ ñi xalal wax na mu lahum ñeel leen rusuluhum seen ndaw ya mooy seen yeneen tiya nekk ñu daal ñun ilaa lu mooy mbindeef mi dugum kam si yéen nañ li ngeen wax ñoo ngi ne mbindeef lañ walakin ne laa wante yàlla yamun moom mooy xéwal xanaa ma ñu koo xam ne sax soob na ko ne bàddi yi ci jaamam bu ma kaan ne jaaduwul nag jaaduwul la naa ñeel ñu te mënul nekk yi nag naati yeekum ñu indil leen bisultaan ci lay ilaa bi ci laay lu mooy ci ndigalu yàlla ci mooy ci na yàlla rek nag wala laay ci yàlla donc fay tawakkal yi na ca ngoy ba mu baax almu'minuuna na way gëm yi bu ma la naan dal moo ñu tere wala ni tawakkalal du ñu ngoy xalaa ci yàlla te waxat xadaanaa gindi nañu subula naa ba tey la suñu yoon mu def subulu naa gin suñu yoon yi wala nas dara dinañu muñ xalaa ma asaytu naa ci li ngeen ñuy lor dinañ ko muñ de wala laa ci yàlla dong fay na ci ngoy mu tawakkilu na way ngoy yi kuy wéeru nag wéeru ci yàlla waxale wax na mu da ci ne ñi nga xam ne kafaroo dañuy weddi li rusulihim ñaa seen yenent ya nuxrijannakum dañu leen génnee ñu ak daa suuf sii ala taxoo dunna wala ngeen mujj fi milatina ci suñ diine ji kon dellu mooy fa nga jóge woon kon mujj nga koy firi borom bi ne bu ma xamee ne gaa yi duñ gëm nag ah mu wax yu ya moo fa fa rabbu borom ñun asaalimiina way tooñ yi ñoo ne yonent yi yéen daal di noppal noppalu leen wax ngeen jëriñul guddeeg bëccëg dañuy xalaat ñun yàlla te wala nus ki nan nekkum dañu leen dëkkaloo yéen ñi nga xam ne yéen yonent yi ak ñi leen gëm alaada suuf si min ba dim gannaaw seen nag salika borom bi ne dimbal gi ñuy dimbalee yonent yi loolu nag li na ma xam yi xaaf na waxee ni sama tëkku wa taftoor sàkko ni ñoo ubbeeku nag ñu ngay tax ko dimbale ko kay ñoom yonent yi borom bi ne waxaama perte na mu kun lu jàbbaarin képp a topp yàlla xam ne ku du mooyu dëgg borom bi ne mu raay yi bu ko firee gannaaw mu ngi ca kanamam jahannamu mu ngi ca ne shadiid de tuwaa la te dañ koy nandal waa safara bu ñu lekkee lay sotteeku moom la naan borom bi ne yette jarroo dina ko góox di ko jéem a wann eh, wala yakaadu du xaw di ko mën a wann ngir lamu si boo dafa si bu jàgg de yo ba yaa ci wa ma huwa déet moom bi maytin muy aji faatu war yi nekk na ca gannaawam ca gannaaw mbugal ma ata mbugal xam ne xalis a a rek borom mi ne masalul lazina misalam gaa mu nga ne ne karamaajin comme doom boo xam ne istadat tar na lool di ci doom ba réew ngelaw fi yow fi boo xam ne asfin ngelaw lu fi dér di la seen jëf dafay mel ni ki jokk mbokk gaag yi noonu comme koo xam ne dafa jël doom teg ko ci aw nga ngelaw ñoo rek yëkku ko yëkkati ko noonu la mel mu ne laa yàq di loona laa yàq di loona yaata ñoom yëfa yee mi ma kasaboo ci lañ jëfoon ala seen dara dara saalika borom bi nu la na huwa ne gu leer nañ ñi la du gisul dëgg borom bi ne an lam tara xanaa ne an xulal boobu da nga xamul ne daa bi xalaqa moo bind sama waat asamaan juróom-ñaar wal arda mi def yoo xam ne jadidin dañuy nekk yu bees ñu fi nekk ñoo xam ne bokk mi def yee laay mu doo faa wolotiya la si na stakbaroo ñeel ña doon réyréylu mooy ñi nga xam ne ñoom lañ toppoon inna nako ñun ku na nekkoñ lu ko ñeel leen te baa nda way topp ñun toppoon de fala andu ndax mooy yéen moo ko noona da ngeen défense da ngeen jëriñ xanaa wala si ñëw minaa tabi laa ci mbugal bi yàlla mi ci dara yawmal qiyaamati ñoom ñooy layoo ñoomu neen kay mi gàddul sa bàkkaar nga d'accord ca layoo baa ngi noona ci tribunal ba borom bi ne xaaral ñu ngay tul wax ñoom nañ toppoon ne law aha law hadaana laa bu fekkoon gis ne ñu moom yàlla la hadaynakum ñu gindi leen de sawaar waye moon alay naa ci ñun a jafe naa moo xam ndax tin nañ am sabar naa wala muñ nañ man la duñ yenn maysin ba ñu pàccu tuguwaay benn wéruwaay amul de waxale wax na mu seytaanu iblis dama xuddi ba dogal leef na atteef na al amru mbir mi waa safara dem safara wa ajjana dem ajjana mu ne inna laa naka borom bi waadakum dëwal na leen ba dal xaq dëwal dëgg dekki waxoon ne dekki am na dekki ngeen fay am na fay leen leen waatukum dëwal leen man iblis fa axatukum foosil leen wa ma kana leen nekkul ñeel ma aleykum ci yéen nekkul ñeel ma man iblis ci yéen ñu sultaan benn lay déedéet na mu ci yewu ci la de force bu ba kenn teewu ma jaasi tiim leen dox ma leen lem ngeen naan loolu la leen wax illa wante kay an daanatukum dama woo leen fa tajatumu ngeen wuyu lee ñeel ma kon nag tey bis baa ngi nii falaa tolloo moo bu leen mën yedd wala moo yéen a yedd am fa seen bopp yéen a ma ñoo yéen ñu ànd namu bu ca la wala tala moo nii wala ma anfusukum ma ana déet man bi musriqikum may aji xettali leen déedéet du aji xettali leen de wa ma antum déedéet ini man sax nag li am mooy kafartu weddi na ma bi ma asabtu moo nii li ngeen doon bokkaale man xam na ne yàlla kenn la nangoon naa ko yéen ñëw ñëw rek na ma ne ñaan moo tax ini ak kafartu bi ma asabtu moo nii ñu xam ne ci lu jiitu ci àdduna bi ne waaw daal li am mooy ina saalimiina nekk way tooñ yi damay yëfar yi loolu sax na ñeexal leen asabun bugal moo xam ne alimun bu métti métti la borom bi ne wa udxila dugal leef na li si ñi nga xam ne amunoo gëm nañu wa aminu salaati te ñuy jëf lu baax jannaatin àjjana yoo xam ne te jëri dafa def min taaj min ta taaj suum anaar ay dex xaalidiina ñu nettali seenu béel nag fiyaa ci àjjana yëpp ci galu seen borom borom bi ne tey yëtum seen nuyoo fiyaa ca àjjana ya boo ca malaayka ya wala ci borom bi mooy salaamu jàmm ak nekk ci yéen alam tara xanaa da nga xoolul kay fa dara ba naka lay defee allah yàlla masalan ab lépp mooy lan kalimatan kaddu goo xam ne tey batan dafa nekk bu teey gu baax ma baatu laa ilaha illa allahu ka sajaratin comme que rek boo xam ne tey batin dafa nekk boo xam ne bu teey la bu neex la ba mooy renam ya saabitun sax na ca suuf ci suufu juróom-ñaar wa ku lay ñin jamono bu nekk bi ñu la bàyyi ndigalu borom nag ku lay indi joxe ñam ba rek waxtu wu nekk muy meññ du rag mukk kooku mooy jullit bi dafay dugal jullit day dugal jigéen ju baax dugal jigéen ju baax dafa am benn bés ci aaya bi Seydina Aliyu defar ci kër jàmbur defar kër koo xam ne këram dafa tasoon waa ji daf na jabaram talaxtu ki hiinal talaxtu ki hiinal loolu wax jabar ji jabar ji ne ko kon suñu diggante jeex na takk jabar ji arab la xam na lu hiin mu ne ko jeex mu ne ko takk fase nga ma ab diir hiin xamul mu yem kon sëy bi tas na waa ji jaaxle jaaxle dem ci bab ko séddiix ne ko de dama nekk suma jabar fas naa la ak hiinan Abubakar ne ko ah mun ndaw si ne ma sëy bi yàqu na Abubakar ne ba yàqul de naa ne fii ñeent fukki at moom dañ jot mu ne ko ñeent fukki at ko waaw waaw ko ah, dégg naa li wax ni ñokket li ngi siy naaw moom bokk li wax baa ko siddiq ci tënk mu bañ a yàgg si daa moon ko ah yow ñàkk nga ne kay de moom benn jabar kii du amul ba saw ji moom jeex na tàkk jeex na mu ne Omar ngay lan mu ne ko sëy bi tas na mu ne waaw dégg naa la kon ne ñokket dem Seydina Ousmane ibnu Affan wax ko li wax ñaar ñii ku ne ko ah bu la de bu ngoonee nga jëli ko mu ne ko ah, la neexee bu ngoonee nga jëli ko mu li nga wax loolu dégg ko de ñu wax ko li mu wax Babacar Omar ak Ousmane mu ne ko demal léegi jëli ko bu bu dellu sa kër de demal jël ko yóbbu ko ngay lan ne ko waaw ne waa ji ne kon xaaral ma dem dem ci yeneen bi nag wax ko li Babacar wax li Omar naa lii mu ko demal nga waal ma mu ñu woo ñëpp ñu ñëw ci bi mu ne góor gi waxaatal li nga waxoon ak ku nekk lam la tont mu waxaat ko mu ne yaa ko tontu mu ne ko waaw waaw. mu ne ko foo ko teg mu ne yow de yaa ñuy wax ne xala atta xal nisaan xiinu mu ne daxari yaa wax ne xiinu boobu ñeent fukki at la ko wax man maa ko wax kay mu ne foofu laa sukkandiku nag mu ne foofu mu ko yow foofu wér na yow sa bopp leer na mu ne ko xamal yow mi ngi nag tas na abadan foofu sukkandiku bul ko yaa ñu wax ne walaati hinna manaasin yow yaa ne yow la yow ma di jeex di bul ko yaa tàng diina foofu la de <laughs> foofu la de walaati hinna manaasin yow ma xiyaam la bu defoon nga sukkandiku kon ñàkk na jabaram bi bu na Usmaan yi woon nag foo sukkandiku bul ko yaa ñu wax ne hinna tum soon hinna tus bi suba hiin la ngoon hiin la moo tax ma ne ko bu la neexee bu ngoonee nga jëli ko donc wax nga dëgg de bu ko xale yow nag fa sukkandiku bu yow yaa yaa ne tuuti ukkalaa kulla hiinin seconde bu ne hiin la mu ne mu ne ko mu ne ko aliyu <laughs> mu aliyu mu ne ko dama jël sa jabar ci la waxee woon nag ni asxaab yi kenn nujjoom xadis boobu ci la cosaanoo si misaal bi comme ay biddiw lañu koo ci roy rek yaa ngi njub koo ci roy yaa ngi njub xoola xoola alquran ku nekk fu mu sukkandiku kon ku lay nin bépp minute bépp waxtu bépp bépp la jamono bi ni rabia ci ndigalu borom bi bu yeddir bu dafay leeral nañu ne allah yalla laa alamsaala léeb yi muy léeb li si ñeen nit ñi laaloom ndax ñoom nit ñi yatazakkaruuna ñu doxee ci wàllu gëm yàlla bu rew masalu kalimatin misaalum kàddu goo xam ne xabiisatin gu ñaawa ñaaw la te muy kàddu gi yéefar ka sajaratin comme garab goo xam ne xabiisatin dafa nekk goo xam ne gu naqadi la gu weqat la mel ni yoqitar mu ne ut tasat dafay cof rek lu fa xalaat ci kaw si dafay cof ma laa du ko ñeel min xalaarin ɓe ɗefne asla sabitun o forma fi samayi bino ucca sat mooy yéefar waaye mooy jigéen joo xam ne baaxul baaxul bu doom yi màggee rek xolam jeex xolam jeex alquran nag wax di maa laha min qaraarin maa laha min qaraarin ah maa laha min qaraarin yusabitu dina mu taala allahu yàlla la si ni ñi nga xam ne amoon na gëm nañ ñu xoolee sabir yi ci wax jo xamne ju sax la muy kaddu yàlla te kenn yàlla gi fi àdduna àdduna bii fi akhirati ak yomal xiyaamati ak qiyamati hmm bu yomal xiyaamee bu ñuy sul nit ki ci bàmmeelam bi malaka ñu man rabbuka kuy sa borom man nabiyuka kuy sa yonent mal kitaabuka luy sa téere ma diinuka luy sa diina ma xiblatuka fuy sa xibla ma xiblatuka fuy sa xibla juróom yi ku ne dañ koo laaj waxtu boo xamee ne déggatuñ na daal di daal di daal di ñu doon suul malaaka yegg si nañ toog loo ko bu tontoo am na saaf bu sibitullaa wala si na amoon bi xool saabit yàlla bokk bu tontuwul nag moom jeex am tontul jeex na borom bi ne wa yudul dina mu sànq allahu yàlla saalimina eh, way tooy ya wa yafalu dina def allahu yàlla masa lu ko neex lan tara xanaa gisoo ilal lesina jëf ñi nga xam ne baddaloo dañoo wattee ni matalaay xéwal yàlla gi ku furan ci weddi wa ahalloo ñu wàccee xamum seen nit ña daalal boo waali ku lu alkande mooy ñi nga xam ne ñoo jiite wan jahannama la dee borom bi ne yaslaw naa dañ ko dugg wa biit sa borom bi ne bon na mu xaraatu sax waay ba ba jaxaloo def nañu laa ñeel yàlla andaadan ay nawle lu yeddiloo ngeen nañu tànk am ñu jàng li yeddiloo ak lu yeddiloo an sabili wala si yoonu yàlla bi te mooy dinaam ji xul na leen tamatoo na ngeen xéewu na ngeen xéewu ci àdduna bii ndax fi ne masirokum seen mucc ila naari jëm na safara xul na leen liha baade ñal sama jaam ñi si ñi nga xam ne amonoo gëm nañ ne yuqimoo nañ taxawal salaata ju lii juróom yun fokk nañ dépensé imaara sax naam ci li leen war sëgal sirran ci lu nëbb waxalaan itan ak lu feeñ min qabli an yaatee njëkk muy yawmun bis boo xam ne laa bay'un déet benn njot fii day am ci biir la wala xilaalun saa ngeen xaritoo borom bi ne amul fa de borom bi ne allahu lasi yàlla mooy nga xam moo bind samawaati asamaan juróom-ñaar wal arda ak suuf wa anzala wàccee min samaa ci asamaan si maa ndox faxra yi mu ko mu nekk wërsëg lakum ñeel leen wa moo ko tàggat ak sam sa jant yi bool xamara ak bay nit ñuy daw abadan di daw rek saxal la ko mu tàggal ñeen leen la guddi gi moo ko tàggalu naara ak bëccëg bi waata ko mu jox leen nu ko lim saaltu moo lépp lu ko laaj kon nag daal lu ñu tawa dem da ngeen di lim ni ma talay kenn du ko takk ci yéen du ko takk inna al insaana ko doomu aadama la kasalamun toñaakoon la waaye kafaarun wi daakoo li ku borom bi moo tàggat yëpp ngir mbindeefam bi borom bi ne fàttalekul nag mu ki ci yéen yàlla ibrahima ba mu demee màkk di ñaan borom bi ismail booba Ismaël rek moo fa nekk tax it mu Ibrahimu rabbi yow suma borom yal na nga def xasal balada dëkk bii amina la mu nekk dëkk boo xam bu am sécurité la bu am sécurité kenn du fa agressé kenn boo julli ji bàyyi sa bitig noonu bàyyi sa bitig kenn du nga nangu na de aminan dem ci jàkk ji wala jumaa ji bàyyi boutique ba noona kenn du laal ku laal ñu jàpp la kenn du laal bokk def ko mu nekk boo xam ne am sécurité la waj nu nii nag ma soril man mooy nag ma wattu ndekuloo woo ba nii ak sama doom an na ba nañu jaamu al asnaama xërëm yi arab yoo sama borom innahunna naka ñoom xërëm yi kat addalal na sànq nañ kay seen ñu bari ñu naasi ci nit ñi kon nag fa man tabi'ani ko topp na ma fay na ko gëm nii ci man la bokk ci man la bokk man asaani ko moom may fay nekk yoo xafoon jéggalaa kon nga rahimun aji yërëme la boobu nag xamagul ne ko suñu borom mu def lii du jéggale ki koy bokkaale booba xamul ne borom du jéggale bokkaale bu nga xamee da ci génn nag booba xamul ko mhm. borom bi nii Ibrahima mu ngi mu ngi mu ñaan ba tey rabbana suñu borom inni yéen naka man kat askantu dëkkaloo na min suriyet yi ci lenn sama njaboot nag waxoon naa la ko ko boobu moom ak yaay Ismaïl min suriyet yi maa leen dëkkal xam ne bi waadin xur woo xam ne xëy du borom mbayteef Makka mënoo bay yàlla mooy def lu ko neex Makka seen xar yi xam nga ñu dundee di ndox defoon ci suuf si rek fóot rek rek dëj la dox di fon ci suuf rek gisoo ko xëy si sareen amul kenn dafa bay mukk yàlla kenn la inda baytikal muharrami ci li nekk bi nga xam ne bu ñu xormaal la de loolu mhm. njëkk tuufal la nag rabbana suñu borom li yuqima ngir nañu julli fa nga def afidatan ay xol mu ne boo nit ñi tax waa ñu jàng ilay jëm ci ñoom naa baax nee na Ibrahima moo fa indi min ba indiwuloon min gi ñëppay dem màkk ñëpp naa si la wax min bee tax ñu bari lu ñu dem waaye fekkoon indiwul bi ñëppay dem fekkoon dafa wax taxawaawum rek taxawaawum ñëppay dem mhm. mhm. bu mu ne kon waa Faris waa Ruum ñëppay dem. waaye dafa ñu naas borom bi nii warzuqhum na nga leen wërsëgal mina samaraati ci meññiteef la'allahum yattaqun ñu yaskuruuna bi sant yàlla yonent yàlla Ibrahima li taxoon mu dem Màkka dafa am jabar bu ñuy wax Saarata Saarata góor bi téeméer ak yu manqué benn. mu amul doom maanaam moom bi muy bi muy bi muy taawlu ëpp na téeméer at léegi nag am na jébar bu ñu wax xaajara mu ne Ibrahima comme que yàlla daf ñuy def def ñu natt léegi ñu ngi jëm mag te amuñ doom jëlal xaajara maa la ko jox Ibrahima jël xaajara taaloo Ismaïla bañ tawlo ismaila ah, dem ci kër gi ismaila di tëb ànd ak cawarte taar saarata mootu ko muñ mu ni ibrahima génnal seet foo dem aywa génnal ibrahima di génn di dem saarata ne hajara kaay mu ñëw mbëtt mu mbëtt nopp ya tak ci buum ci la jaar nopp commencé ba tey pour xam fi ñu jaar muy direeku mu ngi direeku ba dee ba makkatal mukarrama ba xàll ndend la boobu Ibrahima ah? bàyyi leen as ndox su tuuti ba dee mu ndox sa ñeex nag Hajara mar Ismaila mar Ibrahima dem na ndigalu boromam léegi nag Ibrahima di daw diggante sa mar wax ñaari di Ibrahima mu xool gisul kenn mu ñëw yëg ci marwa gisul kenn ba mu juróom-ñaari yoon bu nekkee noonu nag jibril yàlla yebal jibril ñu door mbagg mu suuf sam-sam ban la léegi li tax mu ne ñu dégg sam-sam ci seen langue mooy ibraniya sam-sam mooy bul bul dem dalal mu ne ko sami sami sami sami sami sami ndox mi dalal ndox mi dalal ndox mi moo tax ne yàlla yàlla rëy yërëm yaay Ismaila fekkon di war ndox ndox mi dalal dalal ba day dem ba àdduna bi daj hadiis yent bi yent yonent bi moo ko wax léegi yarhamullaahu umma Ismaila law tarakat sam-sam la kanat aynan ma'inan man lako waxe legi nak bam nekke fofu ndox mi balna amul lu nek xam nga ñam wa na ndox mi balna gi gu wax jurhum juróom jaar fa jëm saam fekk ñu ngi mar ba sonn ñu mi tamit ñu gis ndox mi daw ñëw ne ko ndax doo ñu may ndigal mu ne ah kay mën ngeen ne waaye bokk leen ci de maa ko moom ndox mi sama ndox la ñu ne ko xam nga ni ñuy def da ngi may ñu bokk ko bokk yow suñu ñam wi ko amoo ñam amoo loo lekk mu ne kon d'accord naa ci noonu la demee nag léegi nag ba ba Ismaïla màggee ànd ak taaram bi fekk li dégg ci ñoom arab ñu may ko jabar moo tax di lakk arab mais yaayam du arab baayam du arab loolu demee dégg nga ina ko yow taxalamu la nga ma fii yëpp xam nga ko euh, wa ma nu'linu ak la ñuy feeñal wa ma yaxfadu ba xam laaj ci yàlla mi teeñ ci dara euh, fi addi si wala su may jàng asamaan juróom-ñaar alhamdu cant yëpp nag bu wax alhamdulilah bi bi mu koy wax moom boobu Ismaël ak Isaaqa yépp a nga fa moo mu tudd ñoom ñaar waaye bu njëkk ba nag bu muy njëkk a ñaan moom Ismaël rek fa nekkoon te alam du cant yëpp laa ñeel ne yàlla des yàlla mi nga xam ne waxaaba lii moom may moo ma may alal kibari alal kibari ànd ak ma magee lool may na ma Ismaël mii mhm. Isaaqa ak Isaaqa mii Ismaël ba Ismaël bu mu juddu mu ngi am téeméer lu manqué benn Isa muy juddu am na téeméer fukki at ak ñaar kon isa am Ismaïla ko magee ñi fukki at ak ñett li wér a wér nag mooy Ismaïla dem Màkka kon moo leen doon rendi parce que Isaaxa demul Màkka Isaaxa demul Màkka demul Màkka Isaaxa demul Màkka waaye nasaraan yi nga xam ne Isaaxa seen maam ñoom dañ ne bëggoon rendi waaye Ismaïla mi mu demoon Màkka dem te di màkk lañu doon góor rek mu ne na rabbi yi nekk sama borom la sama doa yi ma aji dégg ñaan rabbi sama borom ital nii maa nga def ma man sa jaam bii mu xima salaat yi ma aji taxawal di lii juróom ma nga def ma ko wa min suriyati yi ak ci sama njaboot rabbana suñu borom wa taqabal na nga nangu duwaa yee sama ñaan rabbana suñu borom ixfir ñu ngi ñaan nga jéggal lii ñaan ma wala waalidayya ak sama ñaari woy waajur wala mu'minina ak mboolem jullit nii كاين لا بغا جيغالني يوم يقوم لبومي تخاو كتاب رك لبا ربي نكو ولا تاسبن مول جرتمو كو نك الله الله يالله قافلا اجي باي amma ya lu muy jëm saa mu way tooñ yi yaa ngi ñaan jéggal waaye nak kumay may jéggal day fekk mu jéem nak dara borom bi ne innama yuaqiruhum innama yuaqiruhum dara mu yéexee leen bugal ma di yemee bis bo xamné ne tasaqasu dana bu xéku fi ci bis ba al absaaru gis-gis yi ku nekk teen do tal kenn mu ne mu mootee ñi way gaaw mu neeru oosiyim ñi da way yuqi seen bop ya ñu xol ci ca kaw laa yaqadu du xëf mukk ilim yi ñoom tal fuum seen gis-gis ya wax bi seen kenn du xam na xol ya féex lu dee war lu dee war lay jàngale ne bu boobu bu boobu bu kenn du tal kenn kenn kenn kon ku ne sa bopp ngay tal lu lay wax su bopp ngay tal dina gën a leer incha du ko gën a gën a leeral du ko gën a leeral mu'ni ru'usihim laa tudd ilayhim tarfuhum fafidatum hawaa'un borom bi ne waasir na nga xupp nag na nga war naa sa nit ñi yow ma yaatihim bis bi dina mu ñëw ñëwal leen alaa tax mu ma mooy yowmal qiyaamati fa yaqulu lazina wax ñi nga xam ne salamoo dañoo tooñ rabbana suñu borom aqir naa ñu nga ñaan yéexee ñu yéexee ñu mbugal mi laa jël mu caab dig boo xam ne xarit bu jegeeñ la buñ ca àdduna ba kon nit ñi daa wuyu dabataka su woote bi da nga ne kenn nga lañ bëgg da bu ne aqir na mu ñëw ñu tuuti rek demaat ci àdduna ba ne tamit ñu topp rusula yonent yi wala tabia rusula ñu topp yonent yi borom bi ne awalam takun xanaa da ngeen nekk la ñun min xam ne ci lu jiitu ci àdduna ma laakum di leen ñeel min sawalin ci génn ci àdduna fii yomal xëyam amul parce que kontu ngeen dëkkoon nag fi ma sakin les yi ne ci dëkkuwaay gaañ yi nga xam ne sax moo dañoo tooñ ñoon am seen bopp wa tabia ngir lëkkum ñeel leen kay fa faan na dama nag laa defoon bii ci ñoom ci mbugal ma ngeen bañ wa dara naa ñu leeral na ñu lëkkum ñeel leen al amsal li nga xam ne mooy léebi yi ak misaal yi ak yi waalaate waxat makru borom bi ne fexal na yonent bi makru seen fexe ma borom bi di lay nekk dafa yàlla loolu seen pexe xam-xam ba yàlla xam ne ko borom bi ne way in kaan dooti nekk na ma makruum seen pexe ya di soli ngir na mu dëñ mu ngi wax ci bàll doy yi du jëriñ dara du wàññi kenn dara du wàññi yënt bi dara donte mën na buddi ay doj du wàññi yënt bi dara déedéet borom bi subhanahu wa taala ne falaa tasabanna jartum kala yàlla moo ne fa wadi mu fasil dëlam rusuloo ndawam ya mooy ndimbal la kenn du tee mu dimbali yeneen tam yi borom bi subhanahu asiis ku ci nguuram la borom bi son ci xaamin borom bugal ñu may la mu ne fàttalikul nag yow ma tubaddalu bis bu def na wattee al ardu suuf si xayral ardi bi dem suuf bu bii nag bu dul bii nag bu dul nag suuf su weex tàll ñu pang nit ñi su sa becc ñu yent bi bu keroog fa nit ñi nekk mu ne ci kaw siraat ñëpp fa la ñuy nekk ca kaw siraat jullit ñi ak yéefar yi ñëpp ci kaw siraat lu yéem yéeme lay doon keroog mooy mooy bis boo xam ne fi borom ma wàccee jant bi ba ci asamaan su jege sii jant bi kenn nit kenn junne ñi dañ ko dëgg te du ko yëg kenn nit junne koy dëgg te du yëg ni dëgg nañ ko kenn nit jant bu ñëw bu tiim asamaan su jege sii ku nekk sa ñaq ñi seen ñaq yi toll seen waq yi ñi seen ñaq yi toll seen xeel yi ñi seen ñaq yi seen oom yi ku nekk ak sa martaba kenn tal kat yàlla wàccee asamaan malaaka yi nekk ci asamaan su jege sii ñu war nit ñi ñaari yoon ñaari yoon asamaan su ñett su ñaareel su ñëw man man man man nañu ñeenti yoon ba ci asamaan juróom-ñaareel maanaam ci euh, laa bëgg a wax ñaar fukki yoon waaw kay laa bëgg wax laa bëgg a wax asamaan su njëkk si day ñëw man nit ñi fukki yoon da leen wër de wër leen man leen fukki yoon wër ndomb li ñu wax wër ndomb fukki yoon man leen fukki yoon bu ñaareel bi ñëw wër leen ndomb man leen yoon bu ci juróom-ñaareel ba wër leen ndomb ñaar fukki yoon dara du pëccëg dara dara dara du pëccëg léegi nag borom bi commencé réglé kenn du kenn du kenn du facc kenn du dem mu ne ba barasoo bu ko defee nag ñu génn ñi ñoom ñëpp boo ci xabru ya li laay ngir yàlla waaye di kii kenn ak xaxaari ki ñotaa kóon ba tax yoo gis Muhammad sallallahu alayhi wa na kàccoor ya yama si boobu mu nekk muqarraniina nekk ñoo xam ne way lënkaloo lañu bil atfaadi ci jéng ya ak gax ya asraabiluhum seen mbubb ya min qatiraanin boo ci goudron safara ca lay boo xoo de wa dana mu muur dana mu tiim بوجوم سين جل مايا نام سفارا وي يجي سين غير نمو فاي مم برام بي الله يا دمو مفاي عالبي كل من بكر بنيك ما كذا ولا مفاي عندكو نلا برام بسر الله يتابي غاشر لي جامع ميلا برام بين اللي نك هذا القرآن جي بلا أقول أجيت الله ناتي نيل نيني ولي ينصرو أكيد نيجي وارو لي ينصرو نيجي بيجي مم ولي علم أكيد نيجي قم لأن ما هو نك يا الله إلا نقول لو عجل بدأ بين ويتكر أكيد نوارو خذ الباب برام خلي كوزار جهنا مسرتي إبراهيم عليه السلام جهنا ñu ngi dëggoo suratul hijri suratul hijri saar la woo xam ne waa am ngëneel la waa am ngëneel la saar bu màkk la lépp màkk la wàcc benn ngi noonu saar wi ayaam yi téeméer maa ngi benn la te loolu asmaa laay naa net saar wu am ay mandarga yu doy waar la saar wi saar wi genn wàllu hizib la bopp saar wi hizib la moom nisfu la nekk nisfu la nisfu la alquran téeméer saar la foog ñeent foog ñeent xaaju kow bi foog juróom-ñaar la waxoon nañ ko léegi boo dalee ca bàqara jëm naati moom saar wii muy fukkël beeg ñeent muy fukkël beeg ñeent jëm naati moom mi fukkël ak ñeent te fukk ñeent moo tollu tur yàlla ñoo ñuy net ak jawaadu ak jawaab saar bu doy waar la boo tàmbalee naasi jëm bàqara fu mu toll moom fu mu toll fu mu toll boo taxawal bàqara jëm naa fi ba mooy mooy mooy fukkal ak ñeent boo tax jógee naa si nag jëm bàqara foofu juróom-ñaar gëna ci ñett dafay des foo benn foofu benn moo fay des alxuraan téeméer saal foofu ñeent ah génn ci fukk benn lu fay def génn ci fukk fukk ñett laa bëgg wax génn ci ñett lu fay def yoolu benn jërëjëf ba jógee naati jëm bàqara xam fu mu li muy tolloon téeméer ak benn mooy téeméeru saal ak bennel net téeméer ak benn mooy amin mooy amin net bu jógee bàqara mooy waxaabu ba jógee naag si mooy amin ngeen wàllu sib la net ëpp lu yeesul aay yi juróom-ñett juróom-ñett juróom-ñett ak juróom juróom ñeent la kon saar wi du nekk hijri na xur la ci diggante Makka ci ginnaaw Makka Mukarrama mooy turu saar wi mooy turu saar wi diggante Makka ak Saam wala Medina ak Saam kay fa la xul wa nekk moo tax borom bi ni alif laam raa yàlla xam lu nam euh, ci arafam yi tilka aaya yi ayatul kitaab bi euh, dafa nekk leen ci aaya téere bi mooy idaafatu bi maanaam min alquran ak alquran joo xam ne bii nii dafa nekk yoo xam ne dafa leer nañ te day leeral caaxaan ak dëgg bu ma yee waddu ak bëri mu bëgg lool li nekk fa ñu weddi yàlla daf ko ne bu nekkoon nañ ñoom jullit ña ñoom ñu nekkoon nañ ñoom yëfar ya mu limin di way gëm baaturu ba nag grammaire lim ñu jàngal mooy bu àndeek ma dugg ci mu daroon ci ma lay dugg waaye tey dugg na ci mu daroon nag xam nga lu tax suñ borom la ñëwagul ak lim nekk ñooyam ci moom kon mu daaroo day mel ni maat ci moom moom borom bi mu daaroo day mel ni ci moom maat moo tax mu ne ataa amrullaahi ñëw na mbirum yàlla waxu yaat yi xam na ne yegg ci na mu ci kanam tax bu may yeewatu aman na mu bëgg bëri na lool muy bëgg lis na kafaroo ñu weddi yàlla lu ko nag bu nekkoon nañ muslimina di julit borom sarum na nga leen bàyyi nag yàkkuloonu ñuy lekk rek waye tamatoo sarum nag bàyyi leen yàkkuloo ñuy lekk waye tamatoo ñuy xéewu wuyu li mu leen di foloo al amoon bi bét yi fa soo fa yàlla na xel si nañuy xam ne borom bi ma alak naa ñun dee duñu xalak mukk nag ñu xëy ci benn benn dëkk ilaa wala lu may ñeen la kitaabun téere muy ab dig maa tasbiqu di jiitu ummatin ci benn benn xeet ajalaha diggam ba déedéet kon min bi dañ ko ci yokk rek maa tasbiqu ummatun loon ñu yokk ci min bi wa ma yastaxiruuna te nag duñ yéex dig ba mukk waxaa wax na ñoom yéefari ne yaa ayyuha allazina yow mi nga xam ne nu si la wàcce naa la ci moom azikru alquran ji innaka yow mii la bañ noonun ak dof ma taatina lu te nga duñ bil malaayika ci malaayika yi in kunta nekk mina saadiqiina bokk ñu wax dëgg ne yàlla la yónni mu ne ko nag ma tanassalu ma tanassalu kay du wàcci maa tana solu maa tana solu du wàcci mukk nag almalaayikatu malaaka yi daa bil haqq lu may dëgg yàgg naa koy wax maat duñ ko rafaa maata tana solu ñu waa sab bentaaba o ma kaan nekkoy ba tey isan buy wàccee ñu malaayika yi musri ni de way négandeku déedéet innaa ñun nahnu ñun laa wax sa borom mu nekk tawkiid nasal naa sikkar ñu wàcce alquran ji innaa ñun loo ñu alquran ji laa hafisuuna ñu koy wattu borom bi ne ñoo ko wàccee ñoo koy wattu kon li nga koy déggee mooy boo amee sa saag bii def ci sa téere bii xamal ne bon téere bi bon bon saag bi yow saag bi du sànku mukk téere bee tax du sànku mukk kon xam nga loo ciy déggee borom alquran yàlla ko seetaan mukk mukk gannaaw day sànk day sàmm alquran mu ngi ci dënn yi kon day sàmm borom alquran yi da koy déggee borom bi ne a qad sana yónni nañu min qablika la jiitu ay yónent fi fiin awalina ca mbo pàcc yu njëkk ya wa maa ya'tiihim min rasulin ñëwal min rasulin ci benn yónent ilaa kaanu bu nekk nañ bi yónent bi yàtta soona di ko sobootee borom bi nekk sax lekk nekk noonu nag natlu ko la ñuy weddige fi qulubil mujrimina ca xolu kàccoor ya mu yéefar ya laa yu'minuuna duñ gëm bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa qad xalat borom bi ne passé na sunnatul awwalina li nga xam ne mooy sunna ñi njëkk ña passé na de wala fatanaa borom bi ne bu ñu ubbi woon alif ñoom baaban buntu boo xam ne min sama bu woo ci asamaan si parce que yendu fii ca buntu ba yaxaru joona di yéeg da xala ñoo xam ne innamaa sukkirat xamal ma def na absar na suñu gis-gis yi balaa ma noonu ñu ma xam dañ nekk ñoo xam ne mosoloona dañu njëbeer ñun asamaan si bu la jël ay burju bu ñu nekk fukki burju ak ñaar ñoo ko def ci asamaan si muy alhamdu wa sahwa wal jawsaa'u wa sartaanu wal asadu wa sumbulatu wal misaan wal aqrabu wal xawsu wal jadu wal dawlu wal xoot yii ñooy fukki ak ñaar ñooy doxuwaayu biddiw yi nag mu nekk juróom-ñaari biddiw ci la dox almariixu biddiw bu ñu wax mariix moom moom xamlu alxaqarab ana bu ñu wax suuratu la moom moom sawru ak misaan bu ñu xataar yi biddiw la moom moom jawsaa ak sumbulut alxamaru biddiw la moom moom sartaanu asam biddiw la moom moom al asadu burju la bu mu tëri moom moom alxawsu wal xóot ak suxaalu moom moom aljadu wa dawlu loolu la demee fukk ak ñaar la burju yi biddiw juróom-ñaar lañu ñaar ñaar benn borom bi ne na rafetal nañ ko ca biddiw ya li naasiri na ñeel way xoole yi wa afidnaa wattu nañ ko ca jumi safara ya min kulli seytaanin dama si daal wax na la jimin dafa nekk muy dàq ci yërmande yàlla borom illaa wante may taraxa koo xam ne dafa sàcc sama dégg ca malaayika ya faat boo topp na ko tiyaabun jum boo xam bi nun bu leer naa ñi la muy biddiw boo xam ne moo topp ko di ko lakk borom bi ne wal addu suuf si matal naa ñoo ko tàllal wal xëy na sax ñu sànni fii ci suuf si dawaa si ay doj an bat na waan baa ñu saxal nañu waan ba naa fiyaa saxal nañu ñu ko lépp loo xam ne ngir wax ne ma soonin muñ xam kemam la mooy muñ natt muñ xam kemam la wa jaxal naa lakum daf na ñee leen fiyaa ci suuf si maa yi sa dunduwaay dama wut noonu lu ngeen ومن لستم اك نيو خم ديجين لو نين نيو دو رازقين غين ويور سغل لين موي سين موم تيفي بروم بي ني وا ان من سين امود لن لن لو من الا عندنا مو نيك في نيون خزائن ما نغ سينم يا وما نسلو دي واتي نك لا بخذ دم الا بخذين نك مو خنا معلومين بو خم لا كوم لي ديفر رك دي ياق موك لو ني بارال بارال لين يالا كو نيك لا غا يولال لي جوخ دي خف موك لا بخذ المعلومين wasanaa yebal nañu riyaa ngelaw yi la waaqee ñuy sol ndox ca niir ya muy la waaqee def ndox ca niir ya la waaqee fansal naa wàccee nañu min asamaan si maa ndox mu namm ca taw ma faas xëy naa ko moo ñoo leen ko nandal ma antum dee yendoo ñeel ko bi xaasi ni ne ngir de way ndoxañ ko de mënut ku am sa tool bu tawut suba nga li muy tekk mënu leen denc ndox mi man yàllaa wa innaa ñun naan la naan ñun sa borom nox yi ñooy dundal way dund yi wa numér si ñooy rey wa dee yi wa danañu al waarisuuna ñooy woy doon na ñoo fiy des maanaa wala xadax léegi naa xam nañu al mustaqdimiina ñu jiitu woon min kum tukkee ci yéen da commencé ci aadama bi laa yu mu jini xam nañu la fa départoon wala xadax li naa xam nañu al mutaaxiriina ñooy ñëw bu yomal xiyaamati inna rabbaka sa borom huwa yaxsuruhum mooy ki leen di pang yi noonu borom bi hakiimun dafa nekk xam ne ko xarañ la ci jëfam alimun ko xam la wala xad xalax naa bind nañu insaan dafa dama min san saalin ci ban mu min xamee ci boo xam ne mag noonu bu ñuul ku kulo soppeeku boo xam ne dafa xasaw kon dafa am du mu bàyyi si moom aadama bi mu koy bind la bëgg a jàngale mu nekk ñeent ñeent ñeenti jamono la ñeenti jamono si moom aadama dafa nekk suuf suuf suñu xam nii da njëkk a nekk suñu borom mooñ ko ay ndox yu bare bare bare bare suuf sa mooñ ko ndox yu bari wàcc ko ba mu soppeeku ñuul kukk muy lan xama mas noonu mu ñaareel ba bàyyi ko ba mu wow koŋ muy salsal keleng keleng mu def ci ruuxu ko nekk na suuf ñeent fukki at nekk xam nga mas noonu ñeent fukki at nekk sal-sal ñeent fukki at def ci ruuxu ga léegi nag ñeent fukki ñeent fukki moo tax jigéen di tëñ yi ñeenti weer dafa fukki dafay nekk man ni ñeent fan nekk lu mu deret ñeent fukki fan nekk suux ñeent fukki fan ruuxa doogu ñëw kon ñeent ñeent fukki ati aadama ya mooy ñun suñu ñeent fukki fan noonu la deme dafa nekk suuf kese ñeent fukki at ñeent fukki at nekk xam man noonu mooy ban soppeeku ñeent fukki at nekk mu ne wal jaana jinne nag am ñu ne mooy iblis am ñu ne mooy bàyyi jinne yi xanaa bind nañ ko ñu xam ne ca lu njëkk ñu safara wax na amul njalag amul saxar moo taxoon nag mu gën aadama ndax moom saxar la ko bindee aadama ci suuf te ne suuf ci lépp lépp lépp ci moom lay jógee wax nañ ko fi benn bés lépp ci moom lay jógee safar mu jiitaloo safar ak ñax mi wala matt mi suuf la jógee borom bi nii man maa def loolu mu ne nag kon war na nga fàttaliku it xale boo xee na mu. rabbuka a borom li malaayikati ñee malaaka yi inni naka man xaaliqun aji bind laa basaral mbindeef min sa saalin ban buy keleng kelengi mais may mos noonu waj ban a xesew bisa sa waytu woon dem masal naa ko yemale ko wante na ngeen rot yéen ñëpp loo jël ko sajidina ngi dewa si jot nañ ko si jot tóojal ko nañ ko tóojal parce mu malaayikatu malaaka yi ñoom ñëpp aj mënu boole seen illaa iblisa moom mooy bàyyi jinne yi bañ na di ànd ak malaaka yi

ila yawmi diini ba ci fayante ba xalam na bi sama borom fan suur nii na nga ma nekkee ko ilaa yawmi yubaasuuna jëm ba ci ba nga xam ne dana ne ko fii nekk rek yow ba ci bis boo xam ne bu ñu xam a la mooy ba ñuy nafxatul oola waxtu bu ñu war bufti bi rek ca dee dekk ànd ak ñëpp nag xalal bi sama borom bi ma la usay na dana mataala loom ñee leen fi addi ko rafetal bëgguloo leen ko wala la ma sa jaam ñi min boo ñoom al mool si na ñi da mooy asa li nga xam ne alee ci ma mustaqimun jub la inee baat yi naka sama jaam yi nga xam ne jullit lañu lay sa lakk du ñeen ale ñoom sultaan benn yoon benn kattan ila illa man ittamaaka ko la topp la min al xaawi ne ci way biyaay wi ti ñal topp way na jaanama jaanna la may doo ma seen dël añu mel ne mboole seen laa ñel na jaanama samat juróom ñaari buntu li kulli baabin ñeenti buntu bu ne buntu ko ci ñoom jusu xaaj boo xam ne maxsuum bu seddale la bu seddale la ci yéefar ñoo ko moom de jusum maxsuum mu nekkoon nag innal muttaqiina nekk way ragal yàlla ya fii jannati ñu ngi ci yoo xam ne yu yaato yaatoo yaatu la wax yoonin ak ay chewnde ñu ne udxuluhaa na ngeen ko dugg salaam yéen ànd ak salaam amin yéen ngeen di am sécurité am di am wóolute amin am wóolute am sécurité udxuluhaa bi salaamin aaminiina wa nasax naa ñu ñu génnee maa fi doon ñu dënn ya min xillin ci lépp loo xam ne bañante la

ñu xillin ci mbañanteeg kañaan naan soxolanteeg yomal xiyaamati amatul fa ko defee ixwaan nekk di mbokk xaal la bërëb yomal xiyaam mere nit amu fa bañ nit amu fa tongo amu fa mbokk xanaa sóorin ñu nekk ci ay lal ñu nga àjjana di mu taxawin di jënoo nag la yamasuhum du leen laal fiyaa ci àjjana te buñ benn coono wa maa hum dee ñoom min aa tukkee ci àjjana ji bi muxrajiina ñuy génnee borom bi ne kon nag nabi xamalal yow alayka salaatu wa salaam ibaadi samay jaam ne ani man ana man sa borom alxafuur maa jégalaa kon ñeent jullit ñi arayimu maa ki leen di yërëm waaye wa ana asaabi xam ne sama mbugal nag may tooñ wala asaab muy mbugal mi ali mu métti métti mi kon ñoom fi nekk rek wa nabi mu xamal leen an dayfi ibrahima ca gën ibrahima ya mi malaayka ya fukki ak ñaar lañu il faut ñett jibril i daqaloo ba ñu duggee ale yi ca ibrahima faxaloo ñu ne ko nusallimu ko salaaman ñata fayal ba ñu ngi lay nuyu ak nuyu xale ibrahima ne leen ah yéen fu ngeen jóge man de ñëwuma leen xamewuma leen ci dëkk bii déedéet xamewuma leen moo tax innaa nag ñun min kum tukkee jiyén wajuloona waaye jàq lañu ci xamuñu leen de xale bi ne ko abbas xaala ñu ne ko laa taw jal bul jàq inaa ñun kat xamal ni nekk ndawatu borom nu basiruka daañu la béggal bi xulaamin xale boo xam ne xalimin borom xam-xam la ñu ne ma isaaq xale mu ne abasartu moo nii ndax da nga may bégal ci doom ala an ma sani ànd ak laal na ma alkibaru ak màggat kon ma tubasiroon da may bégalee ci loo may bégalee taaju xaaral ñu ko basarnaaka bil haqqi ñu la bégal ci dëgg falaa takun bu nekk minal qaanitina bokk ci ñuy woy xaddi yi xale mu ne wa man yaqulu du xaddi min rahmati rabbi ci xëy ma de boromam ila daaloon na njare woy sànq ya mooy woy weddi ne fa maa xat lan mooy seen mbir nag yàlla mosuloona yéen ñuy yónni ñi xaaloo ne innaa naka ñun ursil naa ñun ursil naa nanu ilaa xamin mu ci ñoo xam ne mujrimina kàccoor lañu mu ne ko ñooñ la mu ne ko ñu tudd loolu ya waaye nag ila ala lootin dara ñooñ loot ñi nga xam ne moo waa njabootam nga dey inna ñun la na a juuhum daañu leen musal añ mee na mboole seen waaye ilam raatu la ma jawram ja xadar naa nattale ñu inna na ko moom la min xaabirina bokk nañu des si mbugal ma borom bi ne fa dama jaa ba ñëwalee na ala lootin mu nekk ma fa moom ma foo ma xaddam ñan ñoo ko ñëwal al mursaloona ñuy yónni ña xale wax na moom loolu ne innakum nag yéen xawmun da ngeen nekk nit ñoo xam ne yéen daal mun ko ñu fekk ngeen man xamee ma leen xaaral ñu ko xaaral ñu ne ko bali am mooy ji naa ko bi ma kaanoo ji naa ko ñu la andil bi ma kaanoo lekk na ñoom soo fii ca loolu yem toll di werante di sikki sàkk mi bugal mi ñëw na wa aataynaa ñu la andil bi la àq ji dëgg wa innaa ñun la saadiqoona way dëggu lañ ci ñu wax jii de léegi nag fa asri na nga rañaan bàyyi sa kët bi xitayeen ci dogit mooy leen ci guddi guddi gi xaajee génnal wax tamit toppal adbaaroom seen gannaaw bu leen jiitule toppal seen gannaaw toppal seen gannaaw ne ko walaa yel tafit walaa yel tafit mu gertu mu ko mboo ci yéen aajum kenn ndax amul mu ngi ko tiital mu tiital ñeneen ñi wam doon na ngeen continuer ay surtout umurona fa digg leen ne leen ko damay dem leen saam wa a bi rabbinaa wahyi nañu ilay ci moom yéen yàlla lool saalikal amr moomu la mbir ko ana daabir haawulaayi naka mu jug ñii ma toon dañ koy dagg mos wéy nañu di way cuy nag dañu xale ko rek boo jaa ñoo na mu alu madinati ñu njëkk ba te mooy waa sa doom te mooy góor jigéen ye ñu waaju góor jigéen ye yi tax suroon ñu ngay bég nag kontaan kontaan naan tey mu neex te mu neex xàlloon ni leen ina haawulaayi ñii day fii samay gën lañu falaa tafduuni bu leen ma gàcceel ko nag wa taqullaa ragal leen yàlla wala tax wala taxuni bu leen ma jàqloo xaala ñu ngi koy tontu ni ko awalam nan xeeg xanaa aayi wuñu la woon xanil alamin ngay jaxasoog mbindeef yi waxoon la bu fi gën ñëwati nga jaxasoog moom déedéet waxoon nañ la ko de ñu ko doon aaye bu fi gën ñëwee ñu ne bu ko jege bu ko jege xam nga lu tax ñu koy aaye bu jegee gan ñi bu yàggee ñu gan ñi miin miin ko dox ci seen diggante ak ñoom léegi nag ñoo ko mën nag yow bul jege kenn kenn bu ko jege gan gu fi ñëw rek bàyyi ñu ko nañ bu mu ne gan ñi kon seen liggéey yàqu ñu koy xaye gan ñi xale mu ne ah walaay ñi banaat yi ñooy samay doomi jigéen na in ko dum nekk ngeen faay na bëgg def li ngeen bëgg kaay leen moom may leen leen ñu ne kon nag ñaari mbir amna na benn kon dagganoon ci seen mbam yi fa takk jullit kon dafa dagg nañ ci moom ndax ay jullit li kon bu koy may ab yëfa kon dafa daggan ci seen mu ne innoom nekk ñoom la fi takkaritim ñu ngi seen mandiga yemoon di dengi dengi fa yaqtarum jàpp na leen sa yaatu xaacug jibril ga musriqiina ñu di naa def nanu aliyaha la kaw ca dëkk ba saabilaa mu féete ko démb dem ba nga xam ne waa asamaan ñu ngi dégg ganaar yee sab ak xayey baw ñu juutal leen wante naa taw nañu alem taw ci ñoom ci jaal san tawam dañ bokk na min si jilin booj ban buñ togg ak safara inna fi zalika nekk na ca loola la ayatin ay kawte yu ne kàttanu yàlla ak kennum lil mutawassimiina ñeel ñiy waaru ak ñii seetlu ñiy mandargalu wa inna nekk nag dëkk loolu boobule la bi sabili mu ngi ci yoon waxal muqimin dafa nekk sax waa xol si bu ñu jëm saam ñu ngi koy romb de mën nañ ca waaroo borom bi ne inna fi zalika nekk na ci lii ma leen wax la ayatin kawteem ak waarute lil mu'miniina ñeel way gëm yi borom bi ne wa in xamal ne nekkale nekkan na mu ashaabul aykati ñooñ gol ba bëri garab lool la saalimiina te muñ fi yun yàlla sooy bi nekko leen di way tooñ seen borom fan taxam naa mbugal nañ minum tukkee ci ñoom ño leen mbugal ñoom ñaar muy nitu yoon yàlla loolu yë seen dëkk yi ak gol ba la bi imaam yi ñu bu leer naññi naññi la ko bëgg waar ma hijri ñuñ xur woole diggante ma dina saam mu nitu yoon yàlla nitu yoon yàlla sooy bi ya eh, yun yàlla saalix kay ñi tam ñi la ma nekko noonu sabu hijri weddi nañ almursalin ñu yàlla yónni ku weddi kenn weddi nga ñëpp almursalin la wax wa aataynaahum ñoo leen jox ayaatinaa suñu kaawteef yi te mooy gëléem nga ba nekkoon yàlla walil ko moo di ndaway dëm mooy ba kaa nekkoon yéen fi doon di yett ba kaa yéen fi doon a mu nekk ci bàjjoo yi bu yóota ay néeg aminiina ñu nekk di woy dal ñu am ay ponkol lañu woon nag ay ponkol lañu woon hmm. suñu borom yebal benn niir mu tiim leen fekk dañoo mar lool niir wa tiim leen ñoom ñu dee ci suron niir wa yàlla yebal safara mu tàkk ci seen kaw ñu dee ñoom ñu dee mhm. ñu moom ñu wàggol ba waa ma yéene moom leen dañ leen yuuxu rek ñu mu jàppale sa yaatu xaajo bon bi yéen ñu yu fu ma xanaa jëriñu naan wëri leen maa kaana li nekkoon yaksibuuna di ko fàggandeku de liñ doon kër kër yëpp amul ci ñoom benn njëriñ wa maa xalaqnaa samaawaati binduñ asamaan yi juróom-ñaar wal arda ak suufi juróom-ñaar wa maa baynahumaa ak nekk seen diggante la bil haqq na la dëgg bu ñu ne saati yawmal qiyaamati laatiyatun dafay ñëw de fasfax na nga jëllalee yow aleyhi salaatu wa salaam safha al jamila jëlli ko rafet rek du muyul te bul tawat safal jamila jamono yooyu nag jihaad doogul farata waaye léegi folleeku na aay bii folleeku na inda bëgg sa borom foofu moom kese kese alxalaaqu mooy bindaakoon lu mën a doon ali mooy aji xam lu mën a doon borom yonent bi wala qad aataynaaka joxoon nañu la sabaan juróom-ñaar ñu ne masaan yi yonent bi nu mooy Faatiha boo ko firi de nu mooy Faatiha ndax julli gu nekk da jàng du mu néew néew ñaari yoon. lu mu néew néew nag ñaari yoon ne moo gën nag li ngay li ngay bëgg gars yi dem saam di jëggi bagaas yi ñuy indi li ma la jox ko gën loolu ñuy dem saam du wuti marchandise dañ di jaay gars ma li ma la jox ko gën loolu la ko wax moo tax mu ne ko wal quraana al azima moo ne xam ne fatiha ak alxuraan yi nga xam ne yu tadli la moo tax mu ne ko laa tamuddanna bul tàllal bul tàllal aynayka sa ñaari bët yi ilaa maa jëm ci li nga xam ne matana bii ñoo leen goxee woon sa borom aswaajan dafa nekk aswaajan ay xeet yu bëree bëree bëri bu ko faalee mënum tukkee ci ñoom wala tas na bul jàq xaleen ñoom ndem gëmuñu wax na nga wàccee nag janaag sa wet gi na nga nooyal li moom ñu ne ñel woy gëm ne inna indi naka man ana man ana seen maa ji xuppe ji de may xuppee mu bind ko lu muy xuppee كمان تلاقون نوع تون بقول ما هذا المقتسمين يشدون تيري بياقلي جملي يهود النصارى المقتسمين لنيخ ينه بعنا لنقد نيجي دين قصاني أم ينه ديج المقتسمين خد ينه تبيلة خد ينه تبيلة نحن نيو نيو نيو دمجك بدي ماكي شدوك شدو بدي ماكي لكن نبني نجيجي جمته ماكسي مكرمه تكبر ويبون مكيره mooy ki leen jox xaalis du mooy seen kilifa mooy seen kilifa léegi boo gisee nit ne ko yow est-ce dëggal waa ji ki feeñ ci ñun nii daf la de bu leen ko dëggal yàq na mbokk gi yàq dina maam yi kontoor ko ni yàllaa ko yónni te bu leen ko tuuti leen bu leen ko gëm ku nekk toog ci mbedd ku nekk toog ci mbedd kooku may xalaat muxtasimiina moo tax borom bi ne la si ñi nga xam ne jaaxalool quraana dafay alquran na nekk ay xaaj-xaaj ci seen téere boo jàpp ne yow nasaraan la ma dañ ko def seen téere ay xaaj-xaaj gëm lii weddi la dégg nga borom fa war a béykat ginnaaw ci sa borom ne lanas'alannahum dana mu laaj leen ñun sa borom ajmee na mbir mu ñu dee mbooloo am woo kaan wala nekkoon ne yamuloo na di ko jëf fas da nga yëkkati nag ca kaw na nga yébaane bi maa tuumaru digg def la digg def la ko kon léegi bul nëbbooti de dana julli di nëbb di làqatu na waxal ca kaw jullil ca kaw ca mboot ca mbedd ma ca mbooloo ma fasda bi ma tuumaru na nga yéebaale li li nga def ne la ko wax dëgg na nga dum yaa ne musiki na nag jaadu gu farata kafay naaka ñoo la fegal al mutaasiyina way sabate yi ku mel ne Walid bun Muqira Anas bun Waayil ñu mel noonu mhm. ñoo leen fegal de allazina ma ñu nga xam ne yàlla na ñu ngay def. maallaay ànd ak yàlla ilaal aaxara beneen yàlla borom bi dañu ñoo lay fekk fa soo fa yàlla wala xas nañu xam nekk wala xat na alamu xam nañu ne nag yow yéen di ko dana mu xat saluka sa dënn bii ba yaqulu na ca ba sa borom kon na nga bokk mu ne saajidiina ci way su jóodi yi wax bu rabbaka na nga jàmm sa borom xataa yaati nga bu ñu wala al yaqinu dëgg te mooy dee. nañ dem ci isib bi rek bëriwul kon hijri jeex na suratu naal yi suratu naal yi suratu naal yi màkk la wàcc lu mooy aay yu néew ba yu naa yu naa xabtum ba mbind la wàcc téeméer aaya la ñett fukk juróom-ñett saar wi nag moom def na rek ata amrullaahi te xam ngeen ne feelu maat bu jarat lu yegg la bu pare maat la mu jarat la ata yegg si na amrullaahi maat la mu jarat la mu jaral la kon yegg si na mbirum yàlla moo tax may la moom ñëw ak li teew ak ñëwagul la yemale Ibn Abbas ne ne yéefar yi ñoo doon yéex mbugal mi naan yonent yaa wax ne suñu borom da yenn mbugal na ñëw xanaa du ñëw borom bi iqtabit saa'atu wa shaqqa al-qamaru ñu ne ah nañ def ndànk nag déclaré na de te lu mu wax am na déclaré na de yow xam jege si na kon lépp lu nga daan def ci lu bon bàyyi leen ko wàññi leen lu baax a baax ñu toog ab diir gisuñ dara ñu ne ko ah gisuñ dara daal continué ci lañ nekkoon. بروم يقترب لنا حسابهم يقترب لنا حسابهم جاي جاق نكون نك ممكن نفتح دارا نينتو دون أفن كيفين دارا نيو محمد دار ديو خرج دنيو كبرك دنيو كبرك بروم من أتى أمر الله من يلا يكشنا جاي نبرد على بيرلين خمن من اللي مغلق ما لا مجرى الله كون يكشنا جاي تب بروم بنا فلا تستجلوا بلوك يا كمبي du nga ko yàkkamti mooy sababu nuzul bi moo tax mu ne ataa yëg ci na ñëw na amdullahi yowmal xiyaamati xam nga nu mel suñu borom ni ko ni àdduna mel ci moom mu ngi mel ni nga yónni sa benn gune yónni gune gi demut doo ko topp mukk xam nga ne yàgg-yàgg mu tëdd ci néeg bi jeex na doo ko topp mukk yàgg-yàgg mu tëdd ci néeg bi doo ko bàyyi muy foy rek bu tëdd jotee bu ngeen dee ba ba jàpp roq rek <laughs> muy atamrulaay àddina bi yëpp nag noonu la mel ci suñu borom noonu la mel ci suñu borom xëfër xëppale ci moom moo tax mu ne kon nag falaa tastajiluuhu bu leen ko sàkkoo yàkkamtee subhaanahu tunda ma sellam wa taala jomb na mu xamay si ko na ba lañ koy bakkaale moom borom bi yu ne si lu muy wàcci muy wàccee malaayka te malaaka yi bu yi ànd ak jibril wala bu ànd ak waxyu gi mi am ci ndigalam wala mi tàkk ko soob mais bàyyi ci jaamam yi mu ne an e ansiro na ngeen xopp yéen yi ni may yónni ne àndoo nekk luñ mbir tey mbir laa ilaa de benn yàlla ilaa daa ko dul fa taqoni yéen ñëpp na ngeen ma ragal xalaqa bi na sama waat asamaan juróom-ñaar wal arda ak suuf bilaa xi ci dëgg borom bi ne taxalaa jomb na mu am maa yusrikoona wala koy bokkaale taxalaa jomb na mu borom bi xam nga wala lépp loo xam ne yusrikoona ñoom doomu adama mi ñu fatin ci toqantu man yi fii saa si météo doomu adama xasimun mu mën a xulóot mu bi ku tar nu muy xulóoyee te nu muy xulóoyee borom bi ni wala moo bind juri kër yi fiham giddifun ak ndugg bu seddee ngeen am bu yoo xam ne ci koy liggéeyee ngeen sol ko wa mën naa fi ak ay njëriñ muy doom ya ak soow ma a mi naa ci am na ci yoo xam ne ci ñoom na koy lekk wala kum dinañ leen moom jamaalun taar xëy na turu woon waxtu woo xamee ne yéen a ngi dem di jofe jofali jofali xëy na turu bu ngeen di jofali tey taaru xëy na tusri wala tasaroo na boog waxtu wa ngeen di wëttal mooy wëttal tasar mooy wëttal turóo mooy jofal wa tax wa tax mi ñuy yenu asxalakum seen diit diit ya mooy seen bagage ya ilaa ba leen ci dëkk boo xam ni lam takoonoon du ngeen nekkoon mukk baliq yi dafa yegg ilaa bi siqal an fii lu may coono bokkam coono bokkan rek inna rabbakum nekk seen borom la raufun ko am ci ñëwante ci yéen la rahimun ku leen yërëm la borom bi ne wa moo bind moom borom bi alxayla fas wal biqaala ak barkel wal amira ak mbaam waaye la ngir lan li tarku buuxaa ngir ngeen war ko wa siinatan ak daar moo tax imam Malik nag ne ñett kenn du leen dafa araam fas barkel mbaam Ahmed Mouhamed Ba loolu la wax ak imam Abu Hanifa waaye saafe yi moom ne na dagan na dagan saafe yi ne na bu fekkoon dafa ne si natan mu nekk xaal ne na kon kenn du ko lekk parce dana wasin ak ak la wax ak ak taar te ne bala ngay taaru da ngay regg de ku xiif du taaru mukk saafe yi mu loolu la wax moom moo na mu ne ma dagan na te ne asmaaw doo baab ko siddiq asmaaw moo wax ne nekk nañ ma dina mën war di rey fas ko lekk yéen alxuraan di wàcc te yéen di bàyyi wuñu ko Usmaan moo ko wax moo tax nag léegi bu ñu xoolee moom ne kon xaraam gi du loo xam ne yàqu alxuraan la bu yàqu hadiis déedéet ku nekk da nga usal yu bopp rek alaamal ko waaye du yàq du yàq de Maalik moom d'accord ci léegi Maalik nee na lekk ni mu fooree borom bi njëkkee war kon lekk daganut li tarkubuha la wax li tarkubuha yàlla ko dina bind mala taalamuna lu ngeen xamul wax lay bili, mu ci yàlla xatu sabili yoon na ci yoon yi aji jeng walaw sa, bu neex yàlla pour mu gindil leen ndax daa ko mu gindil añ meena mbir mu ngeen di wala ki nga xam ni an sala wàcc na mu samay ci asamaan si maa ndox la comme ñeel leen mu tukki ñu lom sarabun lu ngeen di naan bu mu na ci ba sajurun garab fii mu ngi ca garab ya yoo xam ne tuuti mu ne ngeen di seen gàtt ya di fa sàmmi yu mbir muy saxal lekkum ñi len bi ci garab ya sana mbayte wala ci ndox ma mu saytuna ak saytu wa naqila ak i tàndarma wala anaaba ak réefe wa min kulli samalati ak ci mi meññteef yi inna fi zalika nekkal ci loolu ayatul kaawteef li xam ñen nga xam ni ne tafakkaroona danañu waru wala mu saxal lekkum tag na ñeen leen leeg guddi gi wa nar ak bëccëg bi wa samsa ak jant bi wa moko tag mu borom bi wal xamara ak wer yi wonu joma ak biddi wi ala kawnihin musaqaratin ak ku ñu tàggat mu nekk hal borom bi ne bi amri ne نيك سي نيغلم ان في ذلك نيك نتي لي الايات لي ايكاوت لي خم ني خم يقلون دا نسي دار مو جاغا جاك بون من واتاك نمو ما سرا لي فلم بند لكم ني لن قاعد في سوفسي بون من مختلف ما جي ووتي الوان ومل كانم يي يقنق يي ويخ يي نيول يي إيه زون بون من ان في ذلك نيك نتي لي الايات ايكاوت لي خم يتذكرون ني ني خم دني ني وارو ولا في ما كنغا خم نيك سقرا تاغ نمو البار جيجي تاكلو نغي ليك مني موم لا خم ياب خم تريان دا فو توي مو نمو نمو سي جين نك ملي خم تريان mooy borom xalil ne ku génn doo lekk yàpp lekk jën tëñu nga te la xamante ne la wax jënd ci nam mu ne wasa tax yoo ngeen di génne min ki moom lii tan lii tan takkaay yoo xam ne taru soo naa da ngeen koy takk du ko xoddoo wataral fulka ngay gis gaal yi mawaaqira ñuy xotti fii ci géej yi di dem wala tabta ak it na ngeen sàggandeku na ngeen fàggandeku na ngeen sàkku min fadli ci nga ñële moom borom bi def ay commerce dugg ci bato def ci def ci marchandise dem réew mu la neex wala lakum ndax ku ñu taskuroona ngeen sant yàlla xam ne lii yàlla kenn moo ko moom wa alqaa fil ardi mu sànni ci suuf yi ay doj ngir lan an tamida ngir bu mu yëngatuku bu mu yëngatuku mu ànd ak yéen wa mu def ci ay dex wa subulan ak ay ndax yoon taxtadoona ngeen bu la ngeen xam fu ngeen jëm wa alaamaatin ak ay mel ni kay ay doj bu nañ mi ak ay biddiw buy guddi la ngeen xam ne xiblu baa nga na le biddiw bële fenk la féetee borom la ñoom yaxtu nañuy gindi nag ñuy gindeeku afa man yaxluqu ndax ku xam dina bind te mooy yàlla ka man dana mel ni koo xam ne laa yaxluqu du bind déedéet kon nag falaa tazakkuruuna te ngeen waaru ndax ngeen gëm yàlla wa in tax doon dem deen ngi jéem a lim ne matalaa xewal yàlla yi laa la xafuran jégalaa la wallaahu yàlla moom mooy xamaa yaa tuzruuna li ngeen di ndax amuñ ruuxu amuñ ruuxu xayru ahyaain duñ dund mukk nag wa maa yas'uruun te yëguñu sax ñoom ne ñoom ñi nga xam ne ñoo xërëm yi yëguñu ay yaani yu masona kañ la dee si dekkal ak comme kañ la leen dee si dekkal ñoom xërëm ya kon nag ñooñu bu leen leen jaamu ilaakum seen yàlla ji nga xam ne mooy yooyu jaamu ilaan bu la waajin ba de benn fa li Sénégal ñi nga xam ne laa ñu duñ gëm bi laa xëy xiyamati xulubu seen xol yamun kiratun aji weddi kenn yàlla la woowum ñoom mustakibiroona ñu ngay réy réylu borom bi ne laa bul faale day dàq daa bi day dàq la mu dàq duñ ko asaf nag jaram jaram nekk feru maat li mu tekk mooy saxna te yey dégg nga laa bul faale bul toppatoo jarama dafa sax te yey ne déggal de ànd laa naka borom bi yàlla mu xam ne mu maytuloon na la ñuy nëbb mayuloon la ñuy feeñal kon ànd beeg si la bi day nekk masdar di faayalu jarama bi muy faayal bi dégg nga innahu moom borom bi laa yu bu du bëgg al mutakbirina way réy réylu ya wisaaqil na waxe bi na mu la ñeel leen masa ansala lan la wàccee rabbukum seen borom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaalu ñu ne asatirul awalina fin way njëkk yi rek borom bi ne ah li yaxmiloo ngir nañu yenu asaruhum seen bakkaariya ma sëkk yawmal qiyaamati bisu taxawaay ba bu ñu awsaari lesi na bakkaar ñu nga xam ne yu duloo noonu ñoo leen benn xam kon ñii dañ gàddu seen bakkaar gàddu bakkaar ñu leen topp leen sànq borom bi ne ala sa ala waawe sa ñaanomu may sirona la ñuy yenu xad nakara fexe na mu euh, lesi ni ñi xam ne mi ñu xam lim ñoo leen jiitu woon fexe woon nañ pour ñi nga xam ne mooy ya ku mel ni benn pale bu gudda gudda pour na ciy yéeg dem ci asamaan pour rey waa gudd ne dafay dem rey waa asamaan fere ci lu nekk lu nekk lu nekk li ci fere sànni booy bi nax ko mu ngi leen yàlla loolu lay woon de loolu di woon de borom bi nii ñu fexe woon ni fexe yu bëree bëree bëri waaye amul njëriñ borom bi nii faatallaaw ñëwal ne yàlla bu yàlla moom seen tabax ya minal qawaayid di ca fondaat yooyu fa xarra mab naa seen kaw sax fu xëdd ba min fawqihim tukkee ba tiim na leen waa taam ñëwal ne la atam wugal ma na su laa yësaroona fi ñu ko yëgee wuloon borom bi nag su ma topp yowmal qiyaamati bi su leen moom borom bi yaqul dana wax nag na surakaa yi su may bokkaale ya seen yi nga xam ne ko fi nekkoon nga tasaaxoona di wóoteeg ñoom ci jullit fii ci ñoom mooy seen biir xaala mu ne nag wax na moo les ñi nga xam ne wootul ilma joxe ne leen xam-xam inal xis ya gàcce gi al yawma tey wasoo ak ñaawteef yi xanaa kaafir yi ne mu ngi ci allasina mooy ña nga xam ne ña xam ne te taw faam dana mu fàlleen malaaka malaaka ya zalimi anfusihim ñu di way seen bopp nag ñoo ko def zalimi anfusihim fal xaw ñu daal di sànni naka salama jébbalu ko womatu ga ne ñun maa ko naa nekku ñoon naamal di jëf ci benn lenn bon déedéet malaaka yi wax ci borom bi ne balaa akay inna borom bi alimun na xam la maa kuntum taamaloona da ngeen doon jëf te mu fay leen ko de fa du xuloo dugg leen abaaba jahannama ah, bunti jahannama yi xaalidina ngeen di way béel fiyaa ca safara wa fala bi sa bann mu maswal mutakabirina tafuwaay way réy réy lu ya wa qila waxel li sin taxaw ñeen ñi nga xam ne teetu nañ bokkaale ma sa ansala ah, lan la wàccee rabbukum borom seen xaaral ñu ne xayran lu baax li la sin asano waaye ñeen ñi nga xam ne rafetal nañu moo ñi gëm fiyaa si dunyaa àddina bii xasan tan njëkk lésina ason na ñeen ñi rafetal yaa sut ni yaa sa njëkk te wala daarul aaxirati kon yomal qiyaama ga xayru moo gën foofu nekk wala ni ma ak a baax daarul muttaqiina kër ñi nga xam ne ñooy ragal yàlla mooy lan mënu ma jannaat adnin aji naay sax yadxuluuna dinañ ko dugg tajri min tahtihaa dafay daw ci suufam anaaru ay dex loolu sax ne ñeen fiyaa ci àjjana ya may sa may sa lu leen soob kasaalika naka noonu nañ ci si la ñu fee àllaw yàlla su muttaqiina ragal yàlla yi da na mooy ñi nga xam ne te taw faam te nu mu fàlle malaayikatu tey bii nañu da way teey ci mboolem yéefar du mooy mboolem mboolem kay yaqul lu ñuy wax nag ñoom malaakee naa leen salaamun jàmm jàmm aleykum Euh, yàlla nekk ci yéen waxtu wa ñuy faatu duqulal jannat na ngeen dugg àjjana mais ku taamuloona ngeen la ngeen doon jëf borom bi ne xar yansuruuna xaaruñu ñoom yéefar yi illaa an taatiyahum mu nekk noonu ñu def wa ma sallamahum laahu yàlla kat tooñu leen ci alkande ga wala ki nekk mooy kaano nekkoon nañu yet li mën a am fusum tooñ seen bopp fasa boobu jot na mu leen sa yaatuma amiloo ñaaw teefu ko tobatee mu ne waxal la si wax ñi nga xam ne parce que koo ñëw bakkaale law sa allah bu neexoon yàlla maa ban naa duñ jaamu min doon yi ku dul moom mi seen ci dara noonu ñun laa wax bu neexoon yàlla duñ jaamu keneen ku dul yàlla wala abaaw naa cageen suñ maam yi bu neexoon wala haram naa duñ haramal min doon wala ku dul na ko doon faal la si umma ummatin ci xew ni rasulan ab yonent ne ko an e ubudoo laa na ngeen jaamu yàlla wata ni wa na ngeen tettaa xoota xërëm yi moytu leen leen fu mu ne am na ci ñoom man a daa ko gindi mu ko alaaw yàlla wa minum am na ci ñoom man a xar ko xam ne war na mu xan la ci moom dalaatu cànku dégg fasiroo na ngeen dox al ci suuf si fasiroo ngeen xool kay fekk naka la nekk aqibatul mukazzibina mujj ñi nga xam ne ñoom weddi woon seen borom weddi yonent yi in taati dem nga xiir nga yow Muhammad alaaw daam ci seen gindi liñ léewoon loo xiir xiir ci ñoom ne laa naka borom laay di du gindi mukk ma ñu dil ko sànk naka ba noppi maanaam ku bëgg a sànk maanaam di leen ñeer ba tey mi naasiri ne ci benn aji dimbale waqtumo ginin bila ci yalla ñoom yëfal ya jada ay manim seen daytul ngeen la yama dekkal allah yalla man yamut ñu faatu ñoo wax ne dekk amul de borom bi ne bala akay na mu dekkalen wa ak degal ali jom haqqan mu yelal ko ak yelal saxal ne ko walakin aksar nas way lepp ñi la yalla mo na xam ñu loolu luy beene ngir mu leral la sin loom ñeel leen la sin yaxtalifuna la sin la nga xam yaxtalifuna ngay wuté fi ci loolu le wali yalla ma ken na xam la sin ñi nga xam ne ko fa dañu weddi ne andom ne ko ñoom kaano nekko ñu kaasibina du way fen borom bi ne inna ma qawluna xamal ne suñu wax ñun seen ñeen mbir mo loo xam ne bëgg nañ ko isa aradnaahu mooy lan an na kon wax loo ñeel ko mbir ma ku nekk rek fii kon mu nekk waxil na rek andi nu nag faa waxil na rek wala si na aajuroo ñi nga xam ne dañoo gàddaay fi laay ngi taxawaa dina yàlla ji ñu mbari maasuli moo gën a botoo ñëf na leen dona bu yu annahum daañu leen wàcc ñun sa borom fi dunya ci àdduna fii xasana njëkk mbir da mën na war a bi muy almuhaajiroona wala ajrul axirati kon pay yomal xiyaama ga muy àjjana akbar moo gën a màgg law kaana bu nekkoon ya'lamuuna xam loolu allaziina sabaru mooy ña muñ gàddaay bàyyi sa njaboot bàyyi sa dërëm bàyyi sa xarit bàyyi sa soppi bàyyi sa alal way tawakkaluuna way tawakkaluuna ñu ngi ala rabbihim seen borom borom bi ne maa leen di wërsëg nag neex wa maa arsalnaa borom bi ne mosuñu yónni min qablika ci lu la jiitu illaa rijaalan mooy ay góor yoo xam ne noo yi dañuy wax yu ilayhim ñoom nag mosuñu yónni malaaka ñoo xam ne kon yàlla ëbbul malaaka mu dëggal la borom bi ne fas alu laaj leen ala zikri borom xam-xam yi jàng tawraat ak xamu leen fekkee xamu leen laaj leen ñooñu le maa leen yónni ñoom leer naññi moo tax mu ne bil yu leer naññi wa subir ak ñu wàcce lekk ci yow sikra alquran ji li nga li nit ñi niyaan nit ñi man si la wàcce ko ilayhim kon moom du def itiyaat walaalaw ndax kon ñoom yatafakkaroon na ñu waaru nangoo gëm borom bi ne afa amina ndax dafa wóolu dañuy ngi seen ñi nga xam ne makkaru ñu ngi fexeel yonent bi ak sa yaati ñaawteef ci daaf na booba dañu wóolu an yax su mu daldi nag wan na loo allahu subhanahu wa taala bi ñoom adda suuf si comme xaaroo na suuf wan na ko ak yaati wala mu ñëwa leen allah taala bëggal ma minaa si laay sunna fi mu ko yëgeewul mu neexee def ko aw yàqut wala mu jàpp leen fii taqalu bi seen tukki ma seen ëlbatiku ma ci seen commerce ma ma am dee ñëpp mu mujj si na ñuy faat yàlla aw yàqutu mu jàpp leen ala taqawufin ci ndànk-ndànk mooy taqawuf te ku ragal de ndànk-ndànk ala taqawufin Seydina Omar moo waxoon benn bis ne kan moo xam taqawuf ci yéen taqawuf kan moo ko xam ci yéen fekk mu timin bar ba taxaw lu ngeen wax ci taqawuf mu ne pat benn góor bu jóg ba ne bopp ba ne suwaay gi ne ko suñu lu ñun de mooy atanaqus ñu gotti gotti ndànk-ndànk mooy atanaqus mu ne ko ndax arab wéy na ko mu ne ko waaw waaw ku ñu Abubakar yi suñu wéykat la wéy na ko de mu ngay misaal benn gële moom daf ne taxawafa raxlu minha taamukan qaridan kama taxawafa fa madan nabati safanu taxawafa gotti na wàññi na raxlu tegga mi naa jigéen nga te amu kan jigéen xale boo xam ne bu rëy la woon mu ne kama taxaw fa comme na muy gottee wala na muy gottee a safanu mooy fayaal na muy gottee safanu liim liim dégg nga wala nga ne rabotage rabotage na muy gottee moo dana fati bantu na maa comme nit yi ni ñuy defee noonu di defaraat di taxal di defaraat kooku mooy a safanu bi moo dana fati mooy bant bi tax ma taxoo fa ni muy gotte di wàññi ndànk par ndànk ak safanu fa di nafat ma da nabaatu kon mooy tekki gott fii na rabbakum naka seen borom la raoofun ko am ñëwenti la ci yéen day mun ko leen yërëm la borom bi ne awla yërëm xanaa gisuñ ñoom sama jaam ñi ilaa maa ci la nga xam ni xalaqal bind na mu ko àllahu yàlla min ci lu mën a doon moo xam garab la wala ay doñ la dafa yow mu ngay jaayu ci laaloo këram ya an li miin saa yi mu jëm côté ndeyjoor wa samaayil yéen saa yi mu jëm càmmooy ñëpp nag su jëlee ngir su jóot ilaa ñeel yàlla waxum ñoom ñëpp kër yaag yooyu eh, daaxiloo na ñu ngay toroxlu mu ne walillaahi ngir yàlla kese yeex judu lay su jootal maa fi samaawaati ah, li ci asamaan juróom ñaar wa maa fi ardi al suuf min daabatin lépp luy mbindeef rek lu yëkkat wa malaakatu malaaka yi ñoom itamit noonu la di moom ñoom laay tikkuura na ñu rëy rëylu a danañu ragal rabbum seen borom ñu foo xiim mu na ñuy jëf maa lépp loo xam ne yu umaru na yéen leen ko digal sadaqallaahu